Monaga jërë ngeen jëf mbokk internet yu wasaare làmb ñoo ngi nuyu bu baax a baax di leen jaajëfee comme ni ñu koy defee chaque jour ñu dafa am ak benn interview bu am solo si yenn mbër yoo xam ne ñoo ngi si wàllu làmb di doxal làmb waaye nekk nekk ay avenir surtout ma xale yi tey jii ku fi dara tey mooy Ramdan boo tuddee Ramdan xam ne espoir la si wàllu làmb amateur yi bëgg ko carte yi bëgg ko ay mbër gox mbër gox yi gox bu mu dëkk tamit ñu bëgg ko bu baax a baax dañuy bàyyi tamit gën a waxtaan ak moom ngeen gën a xam kan mooy Ramdan salaamaaleykum Ram waaleykum salaam maa ngi lay nuyu waaw di la jox sa wàccuwaay waaw ginnaaw bu ma sant yàlla julli si yorante bi julli si ñaar bu ma sant yàlla julli si yorante bi maa ngi sant sama ñaari waajur waaw di nuyu monde entier waaw di nuyu waa Axlu Lam waaw di nuyu waa diaspora bi yëpp waaw di nuyu waa Sandaga bàyyi ñu kenn ñu ngi nuyu ñëpp képp kuy naan yokkal ma jaay la rek ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waaw fépp commerçant mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waaw. di nuyu sama gars yi nekk fi mafia bi maa ngi nuyu ñëpp rawatina maa ngi nuyu sama garab yi toog manga di nuyu cuuri waaw di nuyu Bas Bay bu baax a baax waaw di nuyu Moussa di nuyu ablaay Diouf di nuyu Mbaya waaw di nuyu Saalu Gajaga Baye Saal Gajaga maa ngi koy nuyu bu baax baax di nuyu sama garab Baara Diop maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Modou Fall ah. di nuyu sama gaa yi yëpp daal di nuyu sama garab Ablaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama garab Ibu waaw bàyyi ma kenn di nuyu sama garaa Sirif kooku dafa sonn si man maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaw di nuyu sama gars yëpp waa bàyyi ma kenn. yaay mbëri commerçant yi. waaw waaw loolu yàlla dogal na ko. bu ñu bëggoon xam tey kan mooy Ramdan ñaata combat la toll kañ la commencé bëri. waaw maa ngi ci trois combats bii mooy sama quatrième combat bi ma war a bëri nii Boursita waaw waaw mooy sama quatrième combat waaw. waaw waa maa ngi ci ñaari victoire benn sans var sans waaw maa kii caatu roso woon mais loolu par avertissement la mujj jeexee quoi mhm. waaw. kañ dugg si làmb. man 2022 bi laa dugg si làmb. 2022 nga am 3 combats. waaw ma am ci ma ma bëri ci 3 combats quoi ma bëri ci 3 combats waaw 2022 laa am 3 combats yi bëri ko yàlla may ma ci ñaari ndam ak kii bi ak benn sans verdict yaa waaw waaw. nga tëb tëb rek bëgg jël Buur Siteu. waaw xam nga rek làmb la rek làmb moo ñu boole kese du leneen waaw. Buur da gis xam ne Buur Siteu instant yi moo ngi jóge si defet nga ne xaar Buur moo gën a nooy xaar ma jël ko. non du loolu sax du loolu sax du nu mu jógee ci defet moo tax ma jël ko dañoo waroon a bore rek loolu kese la làmbuñ moo ñu boole rek ñu war a bore maak moom ma war a bore maak moom ñu war a bore rek kese la loolu rek mais lu leneen quoi même bu ma ameen keneen damay jël ndax man moom ñi bayuma fi kenn ñëpp waaw xanaa ñi ma bokkal écrit ak waa Bawol ak waa Fiisal ñëpp ñooñu kese laa fi bàyyi mais moom bayuma fi keneen waaw ñëpp laa fi nekkal ñëpp laay bëreel sama moroom yi nekk fii yëpp laay bëreel ku ma ci ku ma ci jox ma bëreeg moom waaw. man Cheikh Mbaba. waaw daana fa nekk. waaw loolu moom dëgg la moom ay daana fa nekk ñu fi mel ni njaaxuma maa ngi koy nuyu à passage di nuyu suñu kot si baay ba Bada Soum di nuyu ñu école ba yëpp bàyyi ñu kenn waaw di nuyu suñu gara kii Bébé de waaw Moot Séeréer Mor waaw ña ñoom ñagas daal ñu ngi nuyu ñëpp bàyyi ñu kenn waaw. mais Boursité tout si moom wala la. non Boursité du loolu sax làmb moo ñu boole rek waa xam nga ñu war a bëre kese mais du leneen quoi waaw amateur yi bëgg ko yaa ma gën a xam gars yi soxla komba bi daal loolu kese la mais du leneen waaw. comme ni mbay di xool ne xaaral pour nga génn ci làmb ji fu mu toll nii il faut nga xool koo xam ne dafa bëri tour si Siteu ñëpp xam nañ ko kenn kenn dootu ko présenté waa làmb loolu du nekk pression si yow. non non loolu du ma du nekk ci dara si man loolu du nekk dara xëy na moom ma jiitu ci làmb nag waa loolu kese la mais. morom ngeen. non ay morom lañ waaw làmb moom làmb moom dabante la quoi amul maas waaw loolu kese la. waaw xam naa bu muy bëre man boobu bëreeguma xalaatuma sax dinaa bëre mais yàlla moo ñu waxoon il faut ñu bëre ma il faut il faut ñu daje daal waaw loolu kese la. loolu mënu am benn différence si ñaar mënu am benn maanaam ma expérience boobu noonu mu am est-ce que man loolu gëmuma loolu gëmuma ay loolu loolu moom gëmuma ko ci laam ay expérience kii moo ma jiitu si laam moo may ëpp expérience ak ëpp ay nooy noonu loolu gëmuma ko man daal li ma gëm mooy arbitre soufflé ma def li may def jóg dem sama yoon kese waaw waaye gëmuma yooyu. loolu ay waxam la rek Bou Siteu moom ku ko xam xam nga ko ay wax ju bari moom day wax rek waaw wax kese la ci am loolu day wax rek xam ne moom bu tëddee xam na ne moom am na combat bu baax bu tëddee bu nelaw ba yeewu dina xam ne am na combat bu baax ndax ram daan la am waaw amul yaafus de combat la am moom nag li ma koy lancé mooy leen mooy na bàyyi ci combat Balla boo Boy Niang bu mu ciy wax na na nekk ci combat koo concentré ci combat moo gën na xam ne am na combat dina daj lu mu mësatu daj ci combat bii mooy comme bii bii buñ bëree ba pare dina xam ne ñum daan bëree ak kii nii bokkut. lu bokkul. non bokkul. bokkul xeex si wàllu bëre. ci lépp xeex ak bëre lépp waaw. yéen ñoo ngi xeex ak Bou Siteu. ay Bou Siteu xeex ak ku raw ku mën Bou Siteu Bou Siteu Bou Siteu ba dëggalee boppam dama koy door tax mu daanu ay waxatuma ay ñuy xeex nii. <laughs> barke Seydina man damaa gëm loolu Bou Siteu bu man mën naa xeex ak ñu daq xeex Bou Siteu dawul sama yaram barke alxuraanu karim dawul sama yaram waaw Bou daa bokk nii sama yoon nii rek mais taxumaa jóg man sama bot bi teg naa ko feneen fu dul Bou Siteu. kon da koo ko sax mais man sama bot bi teg naa ko ci keneen ku dul Buur Siteu non loolu loolu ay supporteram rek lay naax ay supporteram ñooñu lay naax mais Buur moo la gën a xam ne am na combat. waaw waaw loolu moom loolu moom la concerné moom waaye loolu day wax rek ay supporteram ñoom lay nax mais ma mais Buur moo la gën a xam ne am na komba bu baax a baax. Bou moo la gën a xam loolu te balaa ñu balaa muy comprendre ak suur ba ci lay comprendre lépp. yow ñeme ngay jàkkaar Bou naa naan da nga xeex moom Bou Siteu ñëpp xam nañ si ma ne ku daq xeex Bou la la wax dàq koo bëre ñeme naa jàkkaarloog moom xeex ak moom waxatuma Bou Siteu mii Bou Siteu mii jaaxaluma jaaxaluma ci xeex jaaxaluma si bëre ci dara la ma jaaxalul ci làmb maa ngi ci bët lay tey laa ci gën a nekk sax Bou Siteu ba dëggalee boppam. wallaahi du mot une minute bu taxwee dëggal boppam ñu daje wala ma fekk ko mu taxaw du mot une minute Bou Siteu jaaxaluma si dara jaaxaluma si bëre jaaxaluma si bore ci xeex Bou Siteu boo ta maa ko ëpp doole maa ko mën maa ko gën a ne xele waaw loolu yëpp garaawul Bou moom na xam ne moom ko am na combat bu baax ba mu ngi soog a am komba sax laa ko wax te instant yi moom moom sax dalaa xeeb xeeb bi sax moo waral mu naan ay man boo ñaar daa bëri moom moo wax sax instant yi Bou Siteu xeeb na musiibam bu ma xeebee xeeb na musiibam ndax xam naa mu ngi soog a am mbër bu mbër bu am doole mbër bu mën a bëre mën a xeex mu ngi koy soog a am ci combat bi. mais yow yow yow mbër Bou Siteu ku mujjee bëree euh, Aliou Fat Fat yi ñaa presque yéen a tolloo. waaw loolu garaawul maag Aliou Fat Fat mën nañoo tolloo mais doole bi mën na ñàkk a tolloo mën nañu tolloo ay maas nii mais doole bi mën na ñàkk damaa gëm ne sama moroom bu ma taxawal rek dama ko war a fel jàll man loolu laa gëm man damaa wóol hmm? maa ko ëpp doole kay fuuf sax du benn yoon sax ñaari yoon Bou Siteu maa ko ëpp doole maa ko mën loolu fu leer laa ko teg damaa gëm sama bopp moo tax damaa gëm ne maa ko ëpp doole maa ko mën te xoolal Bou Siteu maa jóg de Bou Siteu daa bokk sama yoon nii rek xam nga coowu lam kese moo tax ma jël ko yaa ma gën a xam waaw coow lam moo tax ma jël ko yaa ma ngi xam mais Buur Siteu taxumaa jóg wallaahi Buur Siteu mii taxumaa jóg man dama sama bot bi dama koo teg feneen fu dul Buur Siteu waaw loolu loolu Buur Siteu dama koy yóbbante len na li jante komaam do bàyyi boo ñaa boo du moroomam na lijjante jante komaa bii komaam bii na ko lijjante moo gën muy wax ci boo ñaa waaw ndax du yomb si moom de barki Seydina boo jàppee day yomb si moom day nax boppam Buur Siteu moom beneen message laa na dëggal boppam suur ba lu muy wax nii yëpp di mbar ratata di mbel mbel yi di dugg ci réseau ci ci site yi di wax ah. su bés baa na dëggal boppam ah taxaw arbitre bu suuflee na dëggal boppam taxaw combat bi du def une minute bu dëggalee boppam wallaahi du yàgg dama koy duma daan ko bu bu gënee bu yaroo ma daan ko ndànk bu reewee nag dama koy dóor dama koy duma yëkkate bu ci kaw dóor ci suuf. nga xeeb nga xeeb nga xeeb Bou dama koo mën du xes yoo xeeb damaa xam ne maa ko mën fuuf bokkul doole yee bokkut. lu mu def si làmb dafa goo mën nañ wax ne dafa goo ko si làmb waaw mën na nekk dafa ko si làmb moom ab ay combat mais Bou Siteu lu mu def nii moo gën a tuuti li ma nar def ci làmb lu Bou Siteu def nii moo gën a tuuti ci li ma nar a def ci làmb waaw moo ci gën a tuuti man damay ñaan yàlla def lu lu ko raw lu ko rawul lu ko duubul laay ñaan yàlla def waaw bu fu ma defee douze combats ñëpp dina xam ne man mbër laa wala du ma mbër combat yu mu am nii bu ma ko amee ñëpp dina xam ne man champion laa nar a nekk wala du ma nekk champion. waaw champion la nangul naa ko ko mais ba damay damay ñaan yàlla man bu mu amee douze combats tey ñëpp damay ñaan yàlla bërëg treizième combat bi ma bërëg roi de Saré incha allah loolu laay ñaan yàlla. waaw mais damaa dégg nga naan Bou Siteu damay damay xeex ak moom dama koy dóor dama koy dóor est-ce bi da ko teg maanaam rek si bëre sa si xeex rek sans si bëre. combat bi ci lépp lu mu indi ma ñu kii ko boo in boo boo indee lépp maa koy def Bou Siteu na taxaw xaar ma rek ma def lépp maa koy maay bëre maay daan maa koy fekk si ñu xeex ma jàpp ko daan ko mu jeex. ci ñu ngi pare. foofu moom amul benn la ñu pare suur ba moom damay feesal stade bi incha allah waaw grand combat bi sax maa koy mon ci ci kii ci mobilisation promoteur bi maa ngi koy laase na ma xaar rek man soxla naa huit bolok waaw huit bolok laay jël incha allah waaw incha allah loolu promoteur bi na ma xaar incha allah waaw di woo waa Sandaga ñëpp nag bàyyi ma kenn képp kuy naan yokkal ma jaay la commerçant yi yëpp waa Rue Floris waa waa rival. wàññil ma jaay la ah awul yokkal ma jaay rek. non yokkal yaa ma gën a xam <laughs> wàññil ma jaay <laughs> loolu moom mooy loolu mais gars yi maa ngi woo ñëpp commerçant yi maa ngi woo ñëpp surtout waa Sandaga Petersen ah. waa di woo waa ri Froris di woo waa ri Angal Ngalani Diouf ah. waaw tool bi yaat yëpp maa ngi woo ñëpp waa ri Valmy bàyyu ma kenn daal bu ci kaw ri conk ñëpp maa ngi woo ñëpp bàyyu ma kenn waaw. di woo di woo Bas Bay nag maa ngi koy woo ci combat bu baax a baax di woo Baye Sall sama garaa maa ngi koy woo bu baax a baax si combat mu jàpp ci di woo Baara ah. waaw di woo ñëpp di woo Ablaye mbay te ngeej maa ngi koy woo bu baax a baax mu jàpp ci di woo Bamba ah, maa ngi woo ñëpp euh, di woo Cheikh di monsieur le maire monsieur le maire ah maa ngi koy woo bu baax a baax mu jàpp ci mu teel a jàpp ci affaire bi waaw ndax dama soxla man soxlu ma leneen xaalis man billet rek nañ jënd billet yi waaw maa ngi woo ñëpp bàyyuma kenn waaw di woo waa Fiisal Mbaadaan sama mbokki séeréer yi maa ngi leen di nuyu sax damaa fàtte bu nuyuwuma leen maa ngi nuyu ñëpp waaw si séeréer waaw mais sim naa fogole séeréer waa Fiisal Mbaadaan xoyaa nun komanem neke nu ndamata o bii nuun o ndeɓ nuun xarit nuun o jerbaat nuun fop nu ndamaten a paax a paax o ɓiy nuun waaw um awasé anga xane fiisalom awasa num képp gum jigma xane na fiisalam garte kano kam bug nuun fop nu ndamtaamo waaw waa fii sen nu ndamote a paax num tout waaw xaƴiim leŋ soob ah fii ki nduum caacaw ngoj leem ah ñëpp di woo waa nag basul waa waaw ñoo joor fayaago ñëpp maa ngi woo ñëpp bàyyi ma kenn maa ngi woo ñëpp bàyyi ma kenn di woo waa Medina Colobane Gueule Tapée ah di woo ñëpp bàyyi ma waa Robos bàyyi ma kenn daal Bawol ah bàyyi ma kenn daal bu ma lemee damay juum maa ngi woo ñëpp si combat bi ñeen jàppale ma Bour Siteu mi dafa bari wax il faut ngeen jàppale ma ma duma ko du may métti daanu ko dafa bari wax trop il faut ñu tëj làmmiñam di ko wax na Bou Siteu nan lijjante combat moo gën mu topp Boy Niang ak Balla Gaye lijjante lu koy yot nii boo xamoon lu koy yot dina bàyyi lu muy yot moom waaw moom nag dama koy lancé naagu seeraas la nag rep dee repul dee rep dee repul dee yàgg-yàgg day dee waaw loolu laa koy wax waaw loolu laay tijjee jaay merci beaucoup